ne sàngu sa tëdd nelaw man ma topp kaa bi su ma paree ci Snapchat bi maa ngi ci whatsapp bi suma ma paree ci whatsapp bi maa ngi ci appel normal topp kaay rek di ko traité di leen wax ne gis naa ñi ma doon bind ak ñi nga xam ne ñoo ngi ma doon woo waaye dama sonn trop moo tax mënuma tontu ñëpp moo tax mënuma wuyu ñëpp di leen wax ne damay ñëw ci kaawu Fat Mbàkke Fat Mbàkke man yéen ñi may bind ak yéen ñi may wax naan ma ay danga ragal Faat mbaake da nga lii <laughs> mu di dama leen di reetaan sax parce que man yaakaar naa ne man Amzo ba may génn benn xale génnut ku toog une semaine yëngal dëkk bi yaakaar naa ne amoo dara looy ragal Faat Mbàkke nag sama doom Faat Mbàkke nag sama doom la comme ñëpp sama rakk la comme ñëpp yéen a ngi dégg man ne naa ba àddina di tukki nit du génn waxal ma dara loo xam ne damay sëgg di jooy wala dama naan ba ma laalee diw parce que sekkuma ko diw xam nga lu ma sekk xale yi teraanga heure def def jot ma deftaante ak ñoom ñu ñaan ma ma may leen man xale du ma yàpp te xale du ma jaamaat loo Fat Mbacké nag si boppam lim génn wax dégg ngeen ko nee na àddina du neex moom wax ma dara parce que xamaluma dara kon su problème bi demee ba Fane Mbacke mu génn wax man ma génn tontu ko man dama am samay nit Fane Mbacke am sama am ay nitam Fane Mbacke wan na ma ne carrément moom bokkut ci coow li waa léegi dama war a continuer di saaga Fane Mbacke te ci coow li yéen nag yéen a bëgg problème bëgg histoire bëgg kaa man du ma kat man lu ma wax nee naa leen man bëgguma injustice Fane Mbacke na ma Mbacke wan na ma carrément ne bokkut ci coow li bokkut ci xuloo bi bokkut ci xeex bi. wan na ma lu ma dégg wan na ma preuve yu leer yu wane na xam naa ne Fane boo bokkut ci coow li dañ ma bëgg a jaxase ak moom léegi nag yéen da ngeen bëgg far foos ngeen ne dama war a saaga Fane Mbacké wala dama war a xas Fane Mbacké ah yéen nag yéen a am fit man nit ñi mënuma xam kan mooy kan parce que bërki démb dafa am ku ma woo fii sama benn nit koo xam ne xamu woon sax ne moom ne am naa mbaaco contact mu ne ma am zoo dama bëgg nga jox ma sa tur ak sa turu yaay ak sa turu papa dama lay dama gis sëriñ bu mag bu boo xam ne daf la war a ñaana pour fay coow li ma ne ko man yaradalu ma sama yaay ak sama papa ñëpp a ngi dund sama mbokk yaa ngi dund te nii tut ma ne ko man soxloo ma kenn ku ma demal ci sëriñ man su dee sëriñ maa ëpp ñëpp sëriñ maa ëpp ñëpp seetkat kon jarul may dem ci sëriñ wala jarul may dem ci seetkat parce que ragaluma fi ma jëm kii dem ci sëriñ ak kii dem ci seetkat mooy ki lakk daay bi te li muy te li lakkee dem ci sëriñ wala kii dem ci seetkat mooy ki nga xam ne moo lakk daay gi te sa te te su jàmbur ak pétrole jàmbur daay gi man nag essence bi ma taalee daay gi maa ko moom sama alal la jar kon man ragaluma bay yónni kenn ci sëriñ kooku motul temps ma localiser ko gis ko kër mbaaco kon xanaa dëkk bi kan ngay wóolu xam nga lu ma bëgg man am na ci ñoo xam ne xamuma leen sina ba ma booleeg ñoom man kenn mënu maa wax loo sama waxu démb mooy sama waxu tey kenn du ma yónni Fat Mbacke nag woo na ma wax ak man coow li coow Fat Mbacke teg naa ko te coowu mbaaco lii yàlla may bi ma may li taxoon may génn mooy injustice yónni nag woo na ma wax ak man coow li teg naa ko te coowu mbaaco lii yàlla may ndam yónni xanaa dëkk bi xanaa dëkk bi kan ngay wóolu xam coow tàgguwuma leen ba may génn di coow yégaluma leen joxuma leen avertissement neewuma leen damay wax lii wala damay wax laa loolu wutuma ci bës wutuma ci tur wutuma ci sant wutuma ci lenn man ba may am tur boobu coow lu jógut ba ma ba may ba ba may génn boobu kenn génnut man ba may génn boobu xale ñama génn léegi la Snapchat xew ak Instagram man ba may live Instagram jóge Instagram dem Facebook dem leen xool septaat ci ginnaaw boo may génne di wax benn xale amut fitu génne live man maa njëkk indi Facebook live xuloo kon yaakaar naa ne man ragaluma du ma tàppet man nit mënumaa reculer loo Fat Mbacké nag pour encore une fois baalu na ma ak coow li jeex na suma rakk la suma doom la te nit ku nekk suma mbaate baalu woon ak léegi ma bàyyi ma baalal ko parce que nit ku nekk nit nga yéen a ngi dégg dama bëgg ngeen bàyyi ma tout tranquillement ngeen toppatoo seen soxla su ma génnee dinaa génn su ma génnul génnu ma moo gën ngeen di def yi fi naa ne jonkan fii ku ne jonkan fii di wax surtout su kii dawee ci fan wax su subaa nga daw ci Amzo wax kan mooy kan aw Aïda Diallo bi maa ci doon génn pour wax man ragaluma kenn kenn fayuma kenn neexalu ma man révélation yi ma am dafa garaaw man su ma génnoon dinaa leeral ba leeral Aïda Diallo ba mu yéegee ci gëléem man dama naroon a indi ay këyit yu leer këyit yu leer laa waroon a indi waaye dem naa ba nit ñi woo ma ñaan ma nit ñi nag suñ ma woowee ñaan ma man nit kese laa te tey rek laa xam suba mën naa am problème nit tamit ma woo nit kooku ñaan ko mu kon su ma nit ñi ñaanee damay bàyyi kenn moom ma sama internet bi benn doomaraam fayalu ma ko maa koy fayal sama bopp xamuma leen xamoo leen ma sinab lañ daje bu ma kenn amee de yéen a ngi dégg man awma lu may tiit awma lu may ragal man lu ma war a wax dama koy wax dama fu I don't care I don give a shit bu ma kenn gëtan ok man du ma fenkatu kenn bu yóbboo ngeen ne am zoo dafa wax xoolal àddina kuy dund xaaral lu ne di nga déggul la neex di nga déggul la naqari soxla ma ñëpp support ma soxla ma kenn ànd ak man àddina ñii yaa dee oo yaa dee baax ñii dañuy ànd ak yow ñii duñ farak yow dafa mel ni opposition baa ngi ni politique baa ngi ni ñuy ànd ak Ousmane Sonko ñuy ànd ak Macky Sall ndegam ndegam opposition opposition yàgg na ci àdduna unité bi ñuy sàkk sax ñii dañoo àndoon ak moom ñi àndoon ak moom bu ma kenn sonal wutuma ku ma neexal wutuma dara yéen a ngi dégg man su ma waree wax damay génn wax kenn du ma forcer nag naan ma génneel preuve wala génneel dara man wax naa li may wax te ñi ma wax xam nañ seen bopp suñ takkewut ak laalawut xam nañ ne Amzo mii li mu wax comme man ñi nga xam ne wax naa leen génn nañ arrangé seen bopp man nit kese laa damay bàyyi damay bàyyi yéenay kan ba duma bàyyi ah waa léegi dama ngeen gis coolu du jeex war ngeen xam ne Amzo mi ka ragalut man may tàppet man mii dëkk Europe dëkkuma Sénégal ragaluma arrestation ragaluma dara du sëriñ du jinne du dara du parfa fuufa du dara lu ma ragal kon man lan laa war ragal bay daaw mën naa wax li may wax xam naa ko li may wax naa ko dara du ci sos man du ma sosal kenn ku yàlla bind parce que man sama crédibilité moo ma gën a lu ma am man Amzo ñi ma jege ñëpp xam nañ ne Amzo dafa am personnalité man sama personnalité moo ma gën lu ma am man lu ma wax preuve la man du ma waxu jàmbur man duma ma jëw du ma fen du ma wax lu ma wax loo ut lu ma lu ma wax rek am na fu ma ko teg man am ku ma xam ñi samay jegeñaale xam nañ ne Amzo lu mu wax rek dëgg la ci moom lan la quel la problème yéen moomoo leen coow li yéen seetaan rek ngeen am ubbi leen seen bëti di seetaan ngeen ubbi seen noppi ñi ñi nga xam ne dem nañ ba xam ne amatuñu seetaan ngeen xam ne case bi close na fii la ko yàlla tuddee ne fii lay jeexee sama yaay daf ma jur teg ma fi pour ay wax man ma ñëw ci Europe bi war a liggéey di daal sama doole wax daf ma fee tax a jóg man kon xanaa yéen ñi nekk ci Snapchat bi di seetaan yéen a ma gën gënoo leen ma di ngeen am seen liggéey di ko liggéey ma am sama liggéey di ko liggéey dama fi war a toog di leen di di di xëy yéen di seetlu leen neex suba ba ngoon dama ne jàll leen ba caaka njaay sama yoon nekku ci kenn sama bopp laa moo ma moo moo ma ñor sama bopp moo ma doy man rek sama bopp rek laay lijjanti lijjantiwu ma keneen parce que fii ma tëdd nii kenn fekkuma fi ne ma am zoo am su dee dundal am su dee fajal say soxla am su weddee def dama ne xam nga lu ma bëgg ku ne na dem toppatoo soxlaam ku ma ci bind ci sinab bi su ma waree wax dinaa wax su ma warta wax du ma wax yeneen kaa ci yeneen cas wala ci yeneen détail laay wax waaye détail bii ñu ma ñaan ni muy détail Fane Mbacké ak détail Mbathio bii ni ñi ñaan nañ ma damay bàyyi yàlla nag su la mayee pouvoir ci benn côté soo naagoo mu nangu pouvoir bi te yàlla may la may na ma nam bi ma may ba pare duma ko nangu mukk di naagu ndax ku naagu daagu te ku daagu ñu romb ku neen na dem toppatoo ji soxlaam man Amzo maa leen woon ci sinab bii kiis bi tëj naa ko kiis bi maa ngi ko teg en attente ba keroog ma war a génnaat dinaa génn su ma waree génn nag du leen woo dinaa génn def ci cet bi yéen a ngi jonkon toog ñi teg seen i baraadaa kaas ñi teg seen i reer seen i bopp lal ñi teg téléphone bi seen seen seen seen seen seen kaw biro ker xamatul looy liggéey kenn xamatul loo jàng kenn xamatul fooy dem ndax coow li dafa war a jeex jeex na dama ko war a pause pause naa ko ba jusqu'à preuve du contraire à tout moment nag mën naa génn man ra man du ma ragal man saalum saalum piir laa man du ma ragal man sëtu mboose laa man ragal juddoowut sama kër maam yéen a ngi dégg di wax nag sama nit ñi ma bëgg ci Snapchat bi kontaan naa ci yéen yàlla leen yàlla defal jàmm ñi ma mën a tontu ñëpp ñi may bëgge yéen ñi may bëgge ci Snapchat bi yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm yéen sama nooni yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na leen yàlla na ma yàlla sàng sutur ba bu ba ba ba bu mu leen wan loo leen may reetaanee yéen sama noon yi ci Snapchat bi yéen yi ma bëgg na di ma safoo di ma faale yàlla na leen yàlla defal jàmm kontaan naa ci yéen nekk leen ci jàmm sama sama fan fii ci Snap bi nag ku ma ci bind wala nga woo ma dinaa la wuyu man du ma nit bu tëju je suis très ba pare ubbi naa leen sama bunt lu ci waaye bëgg a wax ak man soo ma woowee dinaa wax ak yow ñu kaf ñu ree ñu nit laa kom nit yëpp lan la succès laa koy maye te laa ma teg fi ma te ndëgga Michael Jackson ko ëppoon succès ba mu waree dee deewut xam nga lu ma bëgg may leen ma sama jaama may leen ma sama jàmm ku ne na toppatoo soxlaam case close